champion de. yaa ngi xool. mooy champion dégg baax a baax ak fu ngeen mën a nekk ci àddina bi di ñu seetal rek di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñu ngi nag fi nga xam ne moom moo di Géejawaay wala Pikine parce que Ravin defe naa ne Géejawaay la nekk waaye ku ne Ravin tamit sa xel day dem ci Pikine suñ tuddee Pikine nag tey balaa ñoo sori li ñuy def mooy ki nga xam ne moom moo di Serigne Modou Niang nekkoon promoteur bu mag ci làmb depuis quatre-vingt-quinze ba deux mille vingt-trois muy tëgg làmb yàlla jël ko mu mel ni nag samedi bi passé la loolu am suba samedi war a nekk bés bu dellu si mais tey nag buñ fi dajee ak structure bu bees indi ñu combat bu bees muy ay balaa ñoo sori mooy li ñuy ne def rek mooy bu fi nekk rek man moom du ma wax une minute de silence lu may wax Faatiya fukki lixlaas ak benn ñu ñaanal ko Serigne Modou ñaa yéene ko ko ak bépp julli bu tëdd ci yàlla jéggal leen xareel aljana barke yonent ak imam Tall Cheikh Tidiane Tall fii ci aslem wala fii ci Grand Yoff ak ñëpp ñu dëddu ci rek bismillah gars yi faati ak fukki leex laas ak benn rek ñu yéene ko bépp mbuy woy dawlu amin yal na yàlla nangu ñamu ñaan yi barke nabi sallallahu alayhi wasallam yal na yàlla jéggal ñi dëddu ñëpp mu mel ni tey nag fii ñu nekk nii moom mooy Ravin Ravin nag ñu ngi nuyu kii moom kër gi parce que vraiment gis nañ ne ah mu ngi may waa làmb opportunité wu ñu man fee daje te nekk nag benn cadre boo xam ne pël cadre bi rafet na trop macha allah rafet man dama ko doon romb rek xamul sax ne rafet nii la mel ki ñu fee di tey nag mooy Ibou Laye Ibou nag nekk benn jeune boo xam ne nit ku ko xam xam ko ak Modou Lo ci làmb waaye léegi nag olof ne na ah njàng-njàngam soo mokkalee bersa daara seen xaritoo ci làmb wala seen xaritoo ci dund leneen la waaye moom nag dem na ba tey mu créé benn structure bu nga xam ne nii daa commencé nag dëgg làmb bëri gi dem ku ne gis na Youssou Ndour ak Mor Kankan muy combat boo xam ne defe naa ko bëggoon bëri na mais yàlla dogal ko ci xam ne tamit defe naa ñëpp ki nga xam ne moom moo di Zarko daanee Ada Fass te ne tëna tij ne du ñu ne Ndakaaru kon ku fa des ñu ne ko mu ne Gris Bordeaux ñu ne ko Gris daane ci ku nekk ku nekk Ndakaaru Lagros am na contrat yaa ngi dégg kon ku fa nekk Diène Kaïré amagul contrat ñu ne kon nañu jëli Diène Diène Kaïré bu sumbe jul Diène Kairé doomu suñu papa Boy Kairé ñu koy nuyu mais ñu nuyu tamit le promoteur le grand promoteur Baba Diaw ca production ñu lay jaar bu baax a baax a baax defe naa tey Ibou Laye loolu la indi tey tegal ñu ko a ngi nii à droite euh, doo xool a ngi nii à gauche ah borom bi noonu laa koy wooyee mais balaa may sori naa bàyyi Ibou mu nuyoo Ibou Laye maa ngi lay nuyu déjà mais balaa nga nuyu mu nuyu presse bi tamit presse en bi maa ngi di nuyu yéen ñëpp waaw presse en parce que rek yéen ay teew waaw géej ga mu dox maag ngelaw la sedd ba lépp yéen la car rapide ya jaga jaay ya presse en bi la lu ñu bëgg mu siiw rek la kon jaaraama pël Fatma Modou Anta Thier bu ma limee dinaa juum na euh, kële nu mu tuddati Ami Collé ñoo bokkoon gaal ga matu yéen tout le monde soxna Ndeye Mbacke Ibulaay nuyoo asalaamaaleykum sëñ Babacar maa ngi nuyu sénégalais yëpp ci ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay vraiment am kontaan bu baax seen teewaay fii si mbir bi ñu bëgg def fii maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu sama yaay di nuyu sama yaay di gërëm sama yaay sama yaay. maa ngi ñaanal sama papa fi mu tëdd. maa ngi ñaanal a eh, eh, eh. fi mu jógee. yàlla na maa ngi nuyu Pastef Couleur 26 di nuyu Sénégal gépp maa ngi nuyu waa Tivaouane di nuyu sama sëriñ sëriñ Mbaye Sy Abdou ak njabootam gépp teg si loxo Moustapha di nuyu Sénégal yëpp di bëggee ñëpp di leen wax ci daal asalaamaaleykum dugg si naa si làmb. di ñaan Sénégal yëpp ñu jàppale ma ñaanal ma am si réussite totale. na ko yàlla def. parce que parce que bu gis li ma tàmbalee nii xam ni am naa courage bi te bëgg naa li may def te ragaluma fi ma jël. donc bàyyi naa ko si loxo Sénégal yëpp loxo ak làmb yëpp sama ñoom papa Bécaye Mbaye ñoom Malick la Lamine Samba. yéen yéen presse bi yëpp maa ngi leen mhm. xamante nañ. Mhm. xamante nañ bu yàgg. donc dama nekk ci biir rek duggaat ci biir. Mm-hmm. du ma ci gàmm. kon maa ngi sàkku seen ñaan bu baax a baax a baax incha allah. Mm-hmm. di nuyu sama ñaari champion yi di nuyu Diène di nuyu Zarko di leen gërëm tamit di leen sant parce que tey moo na mett sama côté mais comme li ma wax rek ba ñoo xam ne maa ngi ci biir yombaloon na lépp Zarko bi ma ko woowee wax dëgg yàlla gërëm naa ko sant naa ko. Suzanne waaw yombalal na ma ko parce que nee na ma saa yi mu ne ah mu ne ma ndegam yaa ko bëgg ma ne ah ma du métti te ni moo waxee du métti tamit moom la ma defee métti. jéeg mii bi ma ko woowee jéeg bi muy nekk xale ma ne ma bokkoon na fi salle olympique mii du dëgg boobu xale bu ndaw la. waaw kay. waaw kay tey sax comme daanaka. <laughs> <laughs> yaakaar di donc moom mii tamit bu ma ko woowee. <laughs> mu ne ma ah Ibulaay de combat bi dëggam yaa ko bëgg mu ne ko ah mu ne ma du metti tee incha allah boo déggoo paa bi maa ngi koy woo léegi bu dee yaa bëgg moom te pare wax dëgg yàlla du metti ci man tamit ma woo paa bi noonu la ko paa bi naa leen sant naa leen ndax de midi ah, na lépp waaw kay baax foog nga xuus ba si kanam am na solo mais Ibou bala ma dafa am lu ma lay laaj Ibulaay da nga taxawal Mor Kang ak Youssou Ndour ñu ne déet na waaye nga indi tey Zarko ak Diène Kaïré mais man tam dama am lu nga xam dama ko dégg wala ma loxutoon luñ tuur ko ba am ko te lu leer la ni Modou Lo le roi des ak Boy Niang la càppatul de Pikine boobu combat tamit danga ko doon dox bu danga ko bëggoon ba soroon nga ci loolu ci mën a leer Sénégal Babacar xel tey fat sax mais balaa may tàmbali dara tamit waroon naa nuyu sama champion boobu di Modou Lo di nuyu bëri parcelle yëpp ñoom tamit jàppale nañ ma bu baax a baax a baax ba li ma nekk nii tamit ñu ma si dooleel bu baax a baax a baax muy Modou Lo muy Papa Sow Papa Sow barke billaahi démb ba trois heures du matin ñu ngi wax ci combat bi très bien combat bi taxaw na bu yàgg mais mu may nii may conseil boo demee ñii ngay defee ñii ngay defee ñii ngay comprendre nga moom tamit boobu ba léegi lekkul boole ko si li mu nekk ndax xool fi ma jëm comprendre nga di ma suivre ñoom ñëpp yéene ma yéene ma daal ma am si réussite donc maa ngi leen di gërëm di leen ñëpp di nuyu sama suñu maam Père Ba di nuyu Mansour Ba moom ci mention spéciale yu bépp jàppale buy jàppale rek bi moo koy jàppale waaw. combat mu booy ñaan da nga ko bëggoon. solo woon naa si trop nag solo woon naa si trop parce que su ma taxawee léegi Mor Kankan Youssou Ndour te yàlla dogal ma ñëw si Zarko Dieng Kayre kon ku ñu nii yaa ngi doon ndox Modou Lo war ko mën a weddi waaw solo woon naa si trop bon te ba léegi bàyyiwuma tamit. Hmm. waaw parce que gis naa ni affaire bi xaw na xaw na xaw na man ba léegi dégguma benn déclaration quoi. <laughs> pour yow que muy Modou Lo léegi ah. ñu bëri tout cas bu combat bi yéexee ah. <laughs> léegi joxal xaaral ma jox sax mu nuyoo sax ñu ngi am. ñu ngi lay fay salaamaaleykum ñi ngi nuyu ñëpp seetaan di leen wax ni auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ñaanal ñi nga xamante ni ñëpp euh, làqu nañu surtout suñu papa suñu maam muy Serigne Mourou nga xamante ni dafa bokk ci ñun ak suñu imam bi nga xamante ni gaañu na fan yi fii ci Grand Yoff zone 7B di koy euh, masawu di ko di ko masawu képp kuy doomam di leen ñaanal aussi ñu yóbbu seen seen waajur ci jàmm denc ko ci jàmm di wax ni maa ngi nuyu l'ensemble zone 7B de Grand Yoff di leen xamal ni di leen yëgal ni euh, doomu Grand Yoff doomu zone 7 doomu Xaar Yàlla doomu euh, Médina Fass Gueule Tapée fukki pénc ci ñaar yi seen doom seen rakk seen xarit borom doo xool comme ni ko sa waay di waxee amaat nañu bés ñu nag jëm euh, kayre di sàkku ñaan ci ñëpp ngeen ñaanal ñu yàlla defal ñu ndam lu sedd guy comme niñ ko defee woon suñu làmb yee passé di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi écrit grave mbooloo di wax ni am nañ combat combat ak euh, taxaw na te dañuy def nañu defoon rek di képp koo xamante ni si staff bi nga bokk di ko wax ñëpp bàyyiwuñu kenn comme ni message bi jàllee ci whatsapp yeeg lépp comprendre nga ñu ngi leen koy yéegalaat bàyyi ñu kenn képp koo xam ne dirigeant nga nekk écrit Grand Yoff mbooloo ni bu ñu limee dañuy juum Djibi Samb Dia Omar Ndiaye Issa ñoom AS di leen wax yéen ñëpp am nañu làmb ngeen ñëw jàpp ci bu baax a baax comme ni ñu doon def ñu demaat yàlla mayaat ñu ndam ñu ñibbisi di koy yëgal aussi tamit képp kuy doomu Grand Yoff rek képp kuy bëggee Zarko koo xamante ni am nga napp dafa dal sa ginnaaw nga nekk ci biir muy ñi nekk ci biir yëpp waa Jeen bi ñëpp ñu ngi leen di yëgal suñu combat taxaw na ak Diène Kairé ah, ñu ñaanal ñu yàlla defal ñu ndam. Euh, di nuyu ñëpp nag di nuyu aussi particulièrement sama fami ah, di nuyu sama maam di nuyu sama yaay di ñaanal sama papa fee mu tëdd ci àllaaxira yàlla na suuf sedd ci kaw ba mu xippee àjjana ak euh, bépp bàyyi bu mu fa fekk di wax ni zone 7B dañ leen waajalaat Ibou Laye nag moo woote te Ibou Laye c'est quelqu'un de spécial ci man. man mënuma wax sax ci moom du ma ko sax jéem parce que man nag moom ak jéem kayre sax wax li ñu tudd xam nañu donc euh, am na loo xamante nag du du waxu mbedd du wax boo xamante nañ koy teg ci mbedd bi li nga wax ni kontaan nañu ci bëreel la Ibrahima man Zarko lii yàgg naa la ko wax boo xoolee yàgg nañ ci waxtaan man ak yow ma naan la pourquoi pas war na mën a nekk parce que ñi fi nekk ñëpp xam dàquñu la ko te yow yaa gën a yéene nit ñi di la ñaanal li nga sumb nii yàlla la ko suñu borom bàyyi nga àggaleeg sa sago ba li nga ci bëgg yàlla defal la ko yow ak sa njaboot ak ñëpp ak képp koo xamante ni bëgg na la jàppale ak képp ku topp sa ginnaaw di wax ne aussi di nuyu suma adversaire Diène Kairé di nuyu ñëpp ñi fi nekk di nuyu presse bi di nuyu borom kër gi aussi borom kër gi ñu ubbil buntam ba waa làmb man fee ñëw tey di leen xamal ne lii mooy làmb làmb affaire noble la làmb affaire gentleman la xuloo du werante du xasante làmb nekkul loo xamante ni day yàq jeunesse làmb nekkul loo xamante ni day dellu dëkk ginnaaw parce que suñu sport la sport national la dëkk boo dem am na sport am ñi ngi ciy yëngu jeunes yi ñi ciy développé wu ku ci nekk li nga ci bëgg def yaa ngi koy def kon pourquoi pas ñun waa ñun sénégalais ñu bëgg rey làmb imagine boo reyee làmb Sénégal ñaata jeunes ñoo fi nekk ni euh, war a kon donc li laa war a suuree dañuy wax population sénégalaise bi dañu ubbi seen xel te xam ne làmb nekkul luy yàq jeune ni mbër mënee am noonu la footballeur mënee am noonu la basketteur mënee am noonu la fecckat mënee am noonu la leneen leneen mënee am kon li laa war a sóoli ji moo fi nekk loo xamante ni mooy fay mooy moo tax doom du yóbbu yaayam màkk moo tax doom di tabaxal papam kër donc nañ fi bàyyi làmb ji mu dem ba ci kanam a kanam foofu laa yemagum en attendant di nuyu nag sama gars yi ma àndala aada ah, baaxum Vieux euh, bu baax a baax

yow booy jëlee avance kii jël avance kër ga day gën a neex rek kër ga day gën a wàcc. xam nañ lu tax ñuy daw sama lii de Iwulaay sama doom yi i kaay ki mooy buuru kaaf buuru kaaf ni nii taxal fii kii moo tëj waa kaso bi ñëpp moo leen kii. làmb bu ñu teg kaso bi boo ko jël. loolu la ñu soog a génn xam nañ lu tax ñu koy moytu du baaxul ci ñoom làmb bu ñu teg ci kaso bi boo ko jël. mi ngi soog a génn mi ngi soog a génn même pas un mois làmb yu ñu teg ci kaso bi moo ko jël kii jëmm kii. kii làmb yi ci biti lay jël. buuru kaafu gi nii kuy jël ci biir doo bàyyi ci biti. ah am na solo ci koo ci bagage doy na waar. yéen ñu euh, maa ngi lay fay Babacar di di nuyu ñëpp ñi teew. di nuyu Sénégal yëpp di nuyu monde làmb yëpp. di nuyu waa place bi ñu nekk nii. vraiment waaw waa Rafael di leen sant. ak xam nga ni ñu nangoo tijjilee seen buntu làmb. Mm-hmm. vraiment ñu leen di ñaan yàlla place bi dem dem ba romb seen jotu daal. di nuyu ñi ma àndal ku ci mel ñoom xaaf El Hadj sama papa yëpp nuyu sama père Baba ñoom ñëpp di nuyu sama ñoom copain Prince di nuyu Mbagnick Mbagnick. waaw ah. yow da nga am combat concentré wul rek. non moom di nuyu sama adversaire bu baax a baax di nuyu sa rakk bi. waaw champion bi buur gaaw waaw bii ngolo maa lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga àndal ñëpp waaw di nuyu Ibou Laye waaw yow ñu nag yow ni ko Zane waxee rek yàgg waaw depuis ça boobu bëreeguñ sax nekk ay tout tànk waaw xam nga ngay ñafe ñafe kon boo ba yegg si fii man ba nga ma woowee rek dafa am mu nekk yàlla am na ko moo tax ma ne war faa rek lañ ko si kim naa Babacar di la nuyu mhm. di nuyu presse en ligne bi mhm. di bi seen liggéey si làmb tamit mhm. di nuyu monde làmb di nuyu Medina Fass Gueule Tapée Colobane xam nga garaayu xaar yàlla di leen bëgg bu baax di prévito di jaale waale imam bi vraiment affaire boobu waaw xam nga métti na ñëpp yàlla wax yàlla yërëm xaare waaj waaw DRPS Damary Kaso Sénégal yëpp daal di jaale suñu Modou Niang aussi. Mm-hmm. waaw Modou Niang di ko ñaanal yàlla xaaral baajan. Mm-hmm. waaw suuf oyof si doom ak mboolem mbindeef. di nuyu ñi ci biir tamit comme ni nga ko waxee rek di jaami féete ginnaaw yàlla génnee leen bañ teguwaat ci code. ndax nit ku xam nga nit ku dul juróom moom. waaw di bëggee ñëpp daal. Mm-hmm. waaw di nuyu sama adversaire nag. di kontaan di bëri ak yow. waaw yàlla xam na ko. dama ci kontaan lool lu tax waaw parce que adversaire la boo xam ne tey. day dëggal boppam ci làmb. moom sax waaw te man loolu moom lay demee ci mbër mi. boo xam ne du taxaw fee naan non yaay xale yaa war a ñëw moom xam naa ne su ma yéexee pour mu ñëw te xam naa ne dañuy daje maanaam. Hmm. incha allah. mais man li ma lay jëkk a mooy ni mu duggee Dakar. mbéy mi gi doon te bool bool la mais Basson ku ne xam ne ne Medina la. dëgg la yaa ngi dégg waaw dëgg la mbéy mi gi ñoo dëkk. voilà a dëkk kon leer na mu daan lépp ci région de Dakar la rek mais biir Dakar xolu Dakar. dama koy daan. waaw. <laughs> nga jël Ada Fass mu jël Ada Fass. Ada déggoo ma dina duggee dama koy daan. dina duggee si jéem dama koy daan loolu damay eggali si lim bi rek xam naa ne ñeme woo ko wax. Ah, teg si jéem dama koy daan. Babacar dina dugg Ndakaaru de mais bu duggee xam nga fu mu jëm. gaal gaa ngi suba jëm di xaar. déet waay ba balaa balaa sama nga fa di ko xaar jëlal micro bi man damay jiw sama gaal lu leer la wax gaal gaa ngi suba jëm des heures. jëlal micro bi voilà. yow man li ngay lim loolu laa lay eggali waaw eggali te lim ba pare lim day mat ah danga koy eggali. non non non ñëwagul Fall. mais dina ñëw bu dee ñëwagul kay de. jaajëf day ñëw day ñëw de. gaagaa ngay xaar di góob de. yàlla xam nga ne gaagaa ngay xaar day ñëw gaagaa ngi suba jëm. gaagaa ngi suba jëm. yooyee bàyyi suba bëri man làmb ñu ma neex. man. jaww non lii bëri na de. waaw nga. boo ñëw taxaw fi amateur yi natt leen. ay ca waaw. man damay bañ a natt man ab lébu la ma kenn du ma natt. baa ma toog rek. kaay toog kaay toog benn la. neex na maa ngi jóg bu ma ko sentiree. bu ma ko sentiree maa ngi jóg. Eh, yow xanaa déggoo li ma la wax kii maa ko teetee maa ko dalal baa. sama loxo jaar. moom maanaam xale dafa màgg. déggoo ma de. Ah, déggoo ma de xale. ku weer ah, ah, di ko jàngal bëre. mag nag lu mu la jàngal jàngal. denc loo xamante ne bu <laughs> waaw waaw xool man ak moom mos nañ jaxasoo Sall ko xaw ko. ah boobu yi. ko booy fayee ko. nga defar set benn xale. di ko conseillé di ko yedd mu lay suivre nga koy woo entraînement chaque jour muy ñëw mu dem ba bëreeg yow loolu moo lay wan ne Zarko ñëwul Sénégal pour xaar kenn man dama ñëw pour liggéey moom day liggéey dafa jot pour ñu fayeeku suñu jeunesse suñu génération ñu fayeeku parce que ñoom Balla ñoom Mourou ñoom Eumeu Sène fayeeku nañ li ñuy fayeeku ba dem toog dafa jot nag ñun ah ñu yéenante jàmm ku ci nekk yéene sa morom ñu fayeeku donte dañuy bëri benn jour après bu jeexee jeex na ñu nekkaat ay guerre mu jeex mais làmb ji làmb laa làmb laa Ah, di nga gis bëre bu xam nga bëre boo xam day am ay étincelle. waaw mën a xeex bu am étincelle de. bëre bu am ay étincelle. waaw dëgg la di nga ko gis. Hmm. lu leer la wax Babacar. xaaral xaaral mu jaani. waaw bii maa bi xaaral mu jaani wax baaxul. Hmm. yaram bii dafa màndi bëri man dama xam loolu. Ah. xeexuma de bu ñu la xeexee may xeex dañ lay nax de. damay bëri si bul sax dem di jàng xeex jàngal bëri rek voilà dama lay wax de. bu rëy a ñax dégg nga dañoo jaxasoo woon man ak moom. ba ngeen jaxasoo waaw loolu yëpp de Sall. mbir mi yëpp. waaw boobu nag xam nga moom ak doole. di di ko toj. comprendre nga. dërëm dërëm nag ma mu daw jël ma. waaw ma lu ñu xaw a bëri foofu. te loolu yàlla xam na ne musul deñ sama xel. xam naa loolu. waaw musul deñ te te loolu noonu bokk na si fi may jaaree suuf ba jomoo ko moom. non mooy yow loolu loolu li jëm ne caabi weer yi yow fàtte nga loolu. caabi moom li jëm ne fàtte nga loolu. caabi moom li jëm ne ñu la yow fàtte nga loolu. booy bi topp naa de. Eh, non yow moo kii ñoo doon loolu dafay daal ñoo doon entraîné chaque jour ko jëfee. Mm-hmm. mu ñëw naan zar lan laay def lan laay def ak lan. mu naan ko defal lii defal lii defal lii. wallaay Azim tey ma ñëw bëreeg moom man ñëw mu teel mm-hmm. jóguma Europe ñëw fii def Europe cinq ans tey Europe nii mm-hmm. xam lépp Europe xam fa lu baax xam fa lu bon bàyyi fa lépp ñëwaat di di jaayante sama bopp ci làmb ji. non ruube lépp te ñëw ma sax pour ay ay secondes. kii dafa bokk ci yoon bi rek coono jëm. kon moom doo ko moom rek eh, xam nga ci neex bële waaw dañuy teg bi nga roy bële. waaw looloo ci gën a neex. billaay wallaay man ak Zarko gars yi dinañ gis lu musul gis. billaay wallaay taala mais boo xoolee fi mu jaar ak bay bi jaar ak aada faas moom xamee kii kii xamuma sax. billaay wallaay maa la gën a xam. billaay la xamoo ma ah xamoo ma waaye. yow yow xamoo ma xamoo ko bopp maa yow gën a. da nga koo xam ni. Hmm. lii gën a neex nag wax na ko. jéen pare nga Zarko pare nga. lii si loolooy làmb ji mën naa la wax sa combat yëpp ku ci nekk noo ko. yow yow yaa Paa Mourlo yaa ngay fàttal. yaa ngi fàttaliku yow Paa Mourlo. nu mu daan mu daan boo fàttaliku lu mu fàtte. yow Paa Mourlo yaa ngay fàttaliku. tey rek gaal gi. waaw yooyu moom fii nag tamit. yaa ngay fàttaliku waaw yaa ngay fàttaliku. fàtte dañ bëri ñoom ñaar ma pat. waaw moom moo daw jël sa waay xam nga sa waay moo ko combat bi am coow. li topp sax bëgg ma ko man ak Pape Morlo. yow Pape Morlo gaal bi. tere gaal bi non boobu eggul. waaw boobu egg moom laay nettali. non mais boobu eggul. boobu maa ngi ko woon taxaw di la xool. waaw coow moo ko yàq. si coow moo ko yàq waaw naa ko ci tas. parce que Pape Morlo dafa ñëw ci eh, promoteur bi ne ko sama sama xaalis su matul du ma bëree. ma dugg sama gars yi dajale xaalis ñëw ne ko am. waaw ne ko kaa ñu bëree. mu ne nag cercle. ma xam bañ réew. <laughs> kenn daaw. ñu tëggaat laa ma ci parcelle. benn promoteur bu dëkk parcelle moo ko bëree moo ko tëgg xam nga lu ma bëree Pamorlo épaule bu dàmm wulaay bii su ma du ma bàyyi ko fenn moom bu dee suivre na ma kon du ma bàyyi ko fenn Pamorlo benn loxo laa bëree sama épaule bu muy dàmm su ma ko wax si àddina Modou Lo moo ko def kii xam na li may wax boobu mi ngi boobu mi ngi bëree mi ngi préparé combat mag euh, Issa Pouye je pense. mais waaw léegi naa yëg rek ma daan ko parcelle jël bu yéeme. Mm-hmm. yàlla xam na ne ba léegi yow da maa neex bii école bii ba léegi da maa neex ne école bii nii moo daan bay moo daan bay moo daan daan yoon moo daan ñëpp te bu neexee yàlla moo lay daan incha allah bés bu ñëwagul bilaay walaay ñëwagul jafewul sarax jafewul sarax sarax bi lan la mbuusu meew la rek ak sonne <laughs> ah jaxul mbuusu meew mbuusu meew ak sonal juróom rek ak ñaari guro yu weex billaay non yàgg na Babacar war bi sible sama diggante ak Zarko képp la am sa xol dina sedd yàlla xam na ko mais jël ñi mel ne kii de ah yow tamit kii kii dama ko ma tamit kii dama ko xam dina bu baax a baax a baax xam ñeneen. yéen yow saabu mer sedd rek yooyu nga ah, sedd yow da nga ne ci rek. waaye moo ñu gënal yàlla xam na ko. waaw day fànn da ngay tàng ci géew de. ah xam naa c'est normal. yow ah, moo tàngul gars yi dox sa kaw. ah a xam kii baax na wallaay dégg ko ne du géew bii bii bii mooy gën a bii laay gën a bii du tàng de bii laay wala tàng. du tàng de te xam nga liy neex baax a du doon ay si avant lamb bi de. maa laa koy may naa ko mais war bi sifflé maay maay diriger kii jël yooyu yëpp kii maa ngay diriger non yow yooyu yëpp jëloo ko man ki may diriger ju doogul ci làmb yàlla xam na ne maa lay diriger war bi sifflé maa ngi sa kaw xamuma lan mooy sama problème man mënuma mënuma ay ma fecc moom waaw ah man man damaa mën fecc mënuma ay làmb bu bëre la bëre xeex moom mën naa làmb bu bëre la arbitre sifflé ma yow man man moom xeex laa mën man mënuma leneen xam nga man damaa rax njaago di xeexu njaago di jeex bu jour baa xaw ma ban jour ay doon àddina mbindee du ñu tëj géew mu may diriger man. billaahi wallaahi taalaa dama lay diriger yow. bul waat loolu du am. billaahi dama lay diriger. bul waat foo taxaw dama la koy fekk. nga ñëw na nekk. doo yow ma fa fekk. waaw te yow doo ma fa fekk. non mais yow. yàlla ñaar dafa jàmm ba jour. yii yii mis yii mis naa yi ma dawul li muy wax dëgg la de mën na nekk. yii mën na daw ba ren daw. Ah, yow tamit yow comme ay dëgg la ko Sénégal teg ak ñi ko li muy yéeme yéemelu di yéem gars yi. bu dawee sama yaram lu toll nii yàlla ma daan. yàlla na ma yenu ba taxaw dox ak man ma ko neex. bu dawee sama yaram lu toll nii. kon de dinaa la daan bàyyi. sax billaay walaay taalaay. dama lay daan dama lay daan boo dawee sama yaram yàlla nga ma daan. billaay walaay dama lay daan. ah man dara fokkul samay bët. dama la dama lay daan billaay walaay taalaay. mënoo si dara. dinañu wuree man ak yow. du bokk niveau bi du benn quoi. ah léegi ah. ah yow loolu la gis yow. loolu gis nga loolu loolu la am. yow xam nga baax li mu lay wax. baax na kay de. bañ na xam nga li mu lay wax baax na la niveau bi du benn. baax na tey mën a yow rek xam nga niveau bi du benn. billaay wallaay daal léegi lay jaxasoo. mënul ñàkk. waaw ah, dëgg la waaw parce que kii dafa fay xaalis. Mm-hmm. il nous a payé des millions. non non dégg dégg bul ma catu marché. <laughs> yaa ngi dégg. dañu fay xaalis dañ ñëw bëree yaa ngi comprendre suñu bés nag damay ñaan li laay war a suuli ñi nga xamante ni ñu ngi ci réseaux sociaux yi bu ñu yàq image yu làmb ji buñ fi nekk di ñu gàkkal wala ñuy naan kii ni muy waxee wala kële mm-hmm. li ñuy wax lépp pour jaay làmb ji la mm-hmm. ñu àdduna bi yëpp xamee ko noonu mm-hmm. waaw na wax lu ko neex man ma wax lu ma neex ngeen comprendre ko noonu xam ne dañuy jaay suñu bés parce que dañu fay pour ñu jaay bés bi te bés ci bés bu yaboo làmb waa làmb xamati problème judduuti la. voilà. <laughs> garaawul. borom xaalis bu ak passeport booy. loo dégg. kii slogan bi ma ko génneel déggoo. balla balla ba moo ñëw. borom xaalis du ragal pansement. borom xaalis. du ragal pansement ah, léegi amatul doo xool. doo xool yow da mel ni xooloo de. yow xippi woo de la ko. Zarko xippoo de. jël nga ko bàyyi xippoo ba jël avance bi yow. lu leer laa la wax. xippoo ba jël avance bi. mbii mi ana déponé de. kera cunkan koomala boo damoo nga. roga anaye boo damoo nga. boo damoo nga. sa ngando do to nada. wallahi azim ayya. Zarko wala ya. Wala ya ko wala ya. Roga anaye boo damoo nga. Boo damoo nga. yaa diga champion de. xanaa ba am na champion. eh donc. damay champion ci kawam de. nga ni man damay champion ci kawam. laay tëral naa la loole. kii da ngaa laaj kii da ngaa laaj. kii lu mu tax c'est normal. parce que c'est son sang. mais c'est son sang. waaw deretam lay wax bu ko waxul bu waxuloon lii kon dañ ko fiy xas. nit ñun ñëpp ay Sénégalais lañu mais ku nekk da nga am sa ethnie. Ah, dëgg la mais boo boo boo mënul wax nag yow li nga doon. kooku ah. yow yaa fay waaye direct. dëgg la mais ñun lu ñu doon dañ koy wax yow on est fier d'être Peul. moom aussi il est fier d'être séeréer. Mm. mais c'est normal. Babacar. Ibulaay tëgg nga combat boo xamul yow. bon waxuma ci préparation yi de ci biir géew bi ak biir cible. ci biir géew bi da ngay bàyyi. foofu moo neex. Eh, kii kii da ngay bàyyi ma jël ko. mais da ngay bàyyi ci biir géew bi. wax ci mooy da ngay bàyyi. non bàyyi. billaay wallaay da ngay bàyyi comme say morom mu ñu bàyyee. ci bëri bi ci xeex bi da ngay bàyyi. lu leer laa la wax. déggoo la ma bu fekkee yow war nga ma bàyyi loolu ndaw li yàlla nga ma daan sax moom. wala déggoo ma yow. amiin amiin. gën wala déggoo ma. déggoo man la amiin. amiin. loolu lan moo tax naan day bàyyi euh, lan moo tax naan da ah, moom xam nga ne dama xam bëri moom eh, eh, man dama xam bëri li muy bëri dama ko xam mënul bëri lu ma lu muy xeex dama ko xam mënul xeex lu ma ump waaye. waaye yow tamit. wóor na yàlla dina am lu ma kii day bëri ma toog moom mii. signature contrat la bataille psychologique la nii la foog mu jéem a dox ci maay booy bi nag te booy bi daa màgg kay ne Fall booy bi daa màgg. tamit wala. man de loolu laa doon ma jaaree nii jaaree nii. mais man lii laa doon ñaanal man lii laa doon ñaanal. xam naa loolu baax waaw. maa ngi koy yaakaar ne yéene la ko aussi. bu baax. ak Serigne Sall ma jël la ma gën a ma jël keneen. yàlla xam na ne xam naa ko. xam naa loolu. yow sa retour ba nga ñëwee di tàngal di leeral loolu dama kontaan. xam naa loolu. bilaay walaay mais loolu parce que mérité nga loolu am na loo def ci làmb. loolu dem nga ñëwaat nga sa place mu ngi fi. tout tey comprendre nga. loolu mais mais mais garage baa ngi nii. loolu moo lay loolu lay wàññi nag. loolu moo lay wàññi waa ji pour dëgër boobu la. waaye dëgër boobu man waaye yow man nag ñi dëgër boobu laay wër wax naa la ñoom teg leen ci code. damay tëgg tànk rek. combat bu neex a ngi nii. daanaka ñoom ñëpp tënk nañu waxtaan bi. yaakaar naa ne yombalal nañu journaliste yi liggéey bi li ñuy laaj dara mën na leen a bàyyi. mais li ma leen di laaj rek pour ñu dalal seen xel supporter parce que kii ku xam ne jëppal derkele ci de Mali ci de Asegna. ma xaar yàlla. ci Grand Yoff la te kii tamit. doom seen doom la fa la nan la ñuy xel supporter parce que tamit am na ci nit ñoo xamante ni ñoom ñaar ñoo ngi toog di foo di kaf di ree jël seen avance yóbbul ko seen waajur yi. ñi nga xam ne ñooy yeewu la si gànnaaw derkale xaar yàlla ba jëppal ba tas soor lan lan leen di wax parce que dina jàll gisoon nañ ne combat ñett jëriñ ak Jackson. 10 jours yi mujj ci combat bi lañ commencé xeex bay sàtt après combat bi ñu lan la ñuy wax ci doom yi nga xamante dañ leen di topp ak doomu jàmbur yi leen di wax. ah man moom man moom wax dëgg yàlla maa ngi sama ba ma commencé làmb ba léegi kaw ma ne mës naa ñëw ci làmb bi mu ngi waaw parce que ñun sport nañu def. te booy li muy wax nii dafa leer booy ñëpp xamante. ñoom ay kii ñëpp ñooy ceele chaque jour ñëpp xamante ne nice. kon bu dee côté boobu moom non bu doole jàmm ak salaam rek mooy am incha allah waaw ah, moom moo ko daanee rek gars yi nangu rek jóg ñu nga ko ba gën a xam nga mu dal jaama yaa ma gën a xam mooy loolu. su li ñëw am solo ah. su li ñëw am solo. loolu li ci wax rek mooy que ni l'ensemble zone 7B xaar yàlla liberté 6 gaa ngi gaa ngi doole lew na ñëpp amul xuloo amul xeex amul werante mais am na werante. bu la neexee wérante bu la neexee teg sa xaalis bu la neexee teg lu la neex. mais amul xeex amul dara dara dara. Mm. affaire bi benn xeex la xeex bi benn la man la ak Diène Kairé te loolu bu ñu xamee date bi la jour ji ak heure bi ak waxtu bi. xeexloo wuñu ma sàmba ci mbedd xeexloo wuñu ma ci mbedd ku mu neex nag ci mbedd nga wérante ku mu neex ci mbedd nga teg sa xaalis non à violence. woowuma kenn ci violence Diène Kaïré woowul kenn ci violence. làmb bi ñun euh, maanaam boog waa zone 7B la. dañu war a wane un bon exemple ci fànn yëpp maanaam jarul xuloo mun nga sax xuloo garaaw parce que làmb la jar na werante mais jarul xeex jarul jarul dara. mun ngay werante ba suba xuloo ba suba mais jarul xeex bu ci kenn xeex. muy sama côté muy côté Diène Kaïré benn xeex la muy jour yi. ma nag Diène Kaïré bu arbitre bi sifflé ma tax yàlla arbitre sifflé hmm. ma juumloo ko daal <laughs> jël bu sedd buy bu gën a looy bu aada faas bi laa muy daal ii zar cent pour cent maintenant maa ngi profité di leen woo dinaa ko tas de cent pour cent maintenant bàyyi ma nga génnaat déggoo li ma naan su may jum nga jëm zar ko eh gaynde su may su ma junne su ma teeree ma teeree su ma junne. su ma junne ngay teel su ma junne su ma teeree su ma junne su ma teeree su ma junne damay dugg sama kër maam. Soumbédioune su ma fa teeree man. Ah, dama ne la su ma teeree Soumbédioune. Soumbédioune man dama fa am ay gaal. yow xam nga benn nga wax. man ay gaal laa fa am. su ma fa teeree damay dugg sama kër maam. gaal yi ngay yëg. su ma teeree Soumbédioune damay dugg kër Ulle Youm. loolu c'est normal. dama lay wax loolu. dama la jàmm ñëwal eh welcome. am kenn am loolu weer boobu laa lay wax nii. waaw. maay borom yàq jëf ak ci déet. ah yàq jëf ak ci man maay borom yàq jëf ci déet buy salaam ngor man la. xam woon loolu yow. sëtu ulayu. sëtu ulayu. waaw man la la. sama maam ku am kër bi Ndakaaru. sama maam moo la jox terrain man. moo tax ngay yëg ci gaal gi. dama la sama maam ku am terrain ku am kër bi Ndakaaru sama maam moo la ko jox man te loolu kenn du ko dindi. <laughs> man la sëtu ulayu man. waaw. Ah, Ibou Laye loo loo koy laaj Ibou Laye. li ma ko laaj mooy dañuy gis yenn promoteurs yi bu ñuy ñëw si làmb dañuy commencé ci combat yu ndaw huit cent mille cinq cent mille quatre cent mille un million ñoom ñoom seen kase un million la bu ñuy doog a ñëw mais dañu gis mu ñëw décroché Mor Kankan ak Youssou Ndour ñu ne dëkk waaye mu nekk ci combat bi. ne aussi tamit mi ngi ci Modou Lo ak ki nga xam ne mooy Boy Niang ñu koy laaj. maanaam dafa prévoir boppam waaw comme ni nga ko waxee rek làmb ji moom yàlla mooy dogal rek nit mën na am moyen tëggu yaaw jàll. comme nit mën nañoo am moyen de roi des arènes yàlla mooy classé yàlla mooy classé ñun nag yàlla suturaal nañ ñëwoon nañ am fenn fu ñu mën a tàmbalee mooy si digg bi a dem mais yooyu à la pour l'instant nii dañoo ñëw pour def présentation ñaari bëri pour xam pour xamal Sénégalais ñi leen ko bari taxaw na. mais bu soobee yàlla affaire lu mu jot a dem di ngeen gën a xam nekk ci biir mais nank nank quoi bu ñu tëb rek wax lépp waaw incha allah waaw. mu gaaw rek waaw. Euh, sama question ñaari euh, a xam ñu xam séeréer am tuuram lan moo tuddoon buuru morom. bu loolu weesoo. séeréer mooy buur mooy buur waaye nga daan aada paas. maa bañ pël. li nga entraîné aada paas xamul ci semaine. ndax jël kere bi ñaata temps la ko def. est-ce que jar na wala est-ce que ma kàll bi. day naxe day naxe. est-ce que du ma kànji wala rek. non man gëw ma ko de yàlla. est-ce que du ma ko kàll ci football bi. gëw ma ko de kii jàpp ay kii. yow maa daa football bokk nañ say axe la nga fàtte. yow seen gars yi maa daa football seen gars yi waaye yaa ma gars yaa war a couvrir. sport. dafay boole war warul tàggale. bu ñu déggee ñaari ñoom ñaari bu ñu waxee xamante ne ñun bi bokk ci tout tànk la. donc yàlla di dem ba boole leen li ci nekk mooy damay tëli spécial ko aussi parce que xam nga làmb euh, ñoom ñooy mayante xaalis parce que toog na deux ans bëriwul mbër bu ñu ko wax ñuy wiiri wiiri wiiri wëri kii ñëw nangu jël ko bëreeg moom loolu dafa am solo parce que ak ci du leen fi xaar ñun am nañ vingt ans vingt cinq ba tey ñu ngi si de cinquante ans kon nga xam ne sport dafay euh, du la fi xaar di wax ne rek ñu joué ko ci fair ñoom diggante yéen dafa am dafa am ay supporter euh, Grand Yoff dem xaar yàlla jàpp Derklé aseg naa ba foofu moom it dafa am ay supporter ñu naa passe partout c'est-à-dire Sénégal te ku ci daan du génn Sénégal contrat bi ngeen ñu def ko nu mu gën a rafetee sigil le promoteur parce que comme ni ñu ko waxee dafa génnee xaalis am si ñoom confiance kon bu jour ba yéen ñaar ku si nekk incha allah na ngi indi état leer nañ sama ñaari doom lañu nag. say doom la ñu. samay doom ah, <laughs> mu wax dafa wax ay maamam yu nekk. fële ca Médina. mais Diène dafa am ay maamam yu nekk Grand Yoff. maam Ngor Sarr. maam Ngor Sarr sa Grand Yoff. sa samay maam lañ suñu cosaan la Médina lañ fa kon moo tax boo dóoree ni sax dóor da ngay dóor nit ngeen bee mu nekk ni sa deret nga dóoral sa mbokk mais nañ ko teg si cadre sport rek di prôné euh, xam nga non violence parce que am na lu ñu seetlu islam ba léegi xale yi nañ bàyyi simon yi ñuy def après combat nañu bàyyi simon yi après le combat am na ñoo xam ne dañuy làmb day tas liñ naan ñi dañuy gàmmu ñi di raas démb waaye nañu bàyyi nañ bàyyi raas démb gàmm di ci am jéeg di ci am yàlla di ci am yàlla dëgg waaw mais làmb tas rek ngay xool borom iPhone 6 yeeg xam nga ban iPhone moo xew léegi dañ bàyyi yooyu baaxul bàyyi yooyu baaxul yooyu yooyu daal ñuy ñaan yàlla yal na ko yàlla jële fii ci réew mi quoi xale yi am ay ambition liggéey xam ne bu ci nekk ëllëg loo fi def ëllëg bu ëllëgee dee dafa am di bërëb bi de sax di nuyu Serigne Mobina di ko di ko jaale Serigne Mobina doonoon ko baax xale yi nag rafet nañu de demu Serigne Modou ñaa bii non xale yi nga xam ne xamaguñ leen sax si làmb rafet nañu waaye di ñaan jaga ñaa son fils yàlla na jël yet bi ak li liggéey papam quoi vraiment lo laa amoon li ma wax xam ne nag làmb ji làmb jànq la ko ni ñu koy waxee ñoom ñaar yëpp ku si yombal sa moom na ngay nax sa bopp loolu amul de combat bu combat bu na ñoom ñaar ñooñu bëre parce que xam naa leen ñoom ñaar ñëpp kii gaay ne lu ndaw yéen it gaay ne lu ndaw. kopati bébé jën kopati. fer kopati bébé jën ñu ngay waaw li sax wax kii kii bébé jën bébé jën dafa war a jongante incha allah le onze bi di ñëw. waaw di wax samedi bi di ñëw incha allah di invité nag presse bi yëpp di félicité aussi Assane Ndiaye. Mm. vraiment mbir naa créé benn 1000 pour cent. Mm. mille plans pour change Médina dañ ko créé c'est une première à la Médina donc bébé jën moo war a njëkk a dépassé mille pour cent bi donc di moom je pense que ne bii pas cette fois ci affaire mobilisation moom jeex na ku ñëw le onze di nga gis lu yéeme ku ñëw nag date bi nga xam ne ñaar ñi si la ñu war a jomante di nga gis lu yéeme jaajëfal gars yi nuyu naa ñëpp sant ñëpp jërëjëf monsieur la Seyna Moussa Mor dafa fekk ne gars yi xam naa yàkkamte affaire bi ma kii